tey yëglekaay yi li ñu xëyee tey juróomi fan ci weeru euh, février mooy euh, actualité bi Cheikh ñu tàmbalee ko ak l'observateur ñu door ak l'observateur l'observateur dikkaat na itam ci ay poñ yu bari yoo xamante nii njiit bu réew euh, bu Sénégal daanaka aw doxalinam la jëm ci li nga xam ne nag euh, moom moo di élection présidentielle atum 2024 randal yi nga xam ne itam dañ ko ko bëgg randal daal na ci dikkat bu baax a baax lu ñeel itam dialogue national yi nga xam ne itam moom la bëgg woote les gros risques pour l'opposition et pour Macky Sall benn poñ la loo xamante ni l'observateur l'observateur daal dina ko yëkkati l'observateur itam ak tàq-tàq yi nga xam ne nag moom moo am daanaka fu bari eh, ci ay gox niki démb fii ci réew bu Sénégal li ko dooree VDN bi eh, jëm ca kaw loolee itam eh, suñu ay naataangoo dikkaat na ci waaye ba ñu wax demee ci kaw itam ca Cap Skirring jàppal ne gën góor gu ñu fa rek teg loxo moom mu ñu njort ne dafa rek faat benn charpentier ak itam daal di violer gouvernante bi lu ñu mel mënees ko lire ci li nga xam ne nag moom moo di l'observateur ginnaaw l'observateur beneen ab yéenekaay bu àddu ba tey ci lu soxal langue politique bi. enquête dàq bi nga xam ne moom la ñu dàq élection euh, présidentielle atum 2024 le Sénégal face à lui-même euh, moom njiit bu réew bu Sénégal itam ñu daal di koy teg ak ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo di juróom-ñaari charge yi ñu ngi ci li nga xam ne moom moo di bile yéen kaay beneen ab yéen kaay bu àddu ak itam nataalu njiit mu réew mi. ñu xool le quotidien. le quotidien ak itam sale le sale coup. Euh, de euh, force lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne moom moo di euh, yéen kaay wi annulation bu présidentielle bu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février yenn ci ay poñ yoo xamante ni itam daal di nañ koy teg moom njiit bu réew mi daal di renouveler waat li nga xam ne nag moom moo di ak confiance am jëm ci ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba niki bi itam Dakar tàngoon na jër ndax itam gaz lacrymogène yoo xamante ni way takk der ñu ngi ko doon sànni askan wi itam dox jëm ci seen kaw le soleil national. ñu jàll ci loolu. mu mel ni nag élection euh, prévue le 25 février atum 2024 la présidentielle ne se tiendra euh, pas à dat loolee la rek à la date à date la daal di euh, fësal suñu ay naataango yu la soleil nationale maanaam présidentielle bi date bi nga xam ne app bi nga xam ne moom la ñu ko jàppoon lu ni mel day mujjurandu. ñu xool libération. libération ak itam réew bu euh, Sénégal ci la jamono itam euh, fi muy suusee bari na ndax ñi itam ñenn ci ñoo xamante nii euh, nee nañu faw li nga xam ne moom moo di élection yi ñu daal di koy amal lu soxal itam suñu constitution ñu bañ koo salfaañee Thierno Alassane Sall ak itam Mary Teuw Niane la ñu xamle moom moo di lu ni mel trahison la maanaam yaakaar gu tas boo xamante ni nag am nañu ko ci ki nga xam ne moom moo di njiit bu réew bu Sénégal signal Walfadjri wi nga xam ne nañ koy nangu ki nga xam ne nag moom di PDG wi ni ki démb dégg nañu ay kàddoom moom maître Cheikh Niass la mu xam le moom moo di nag euh, place bu Macky Sall du fa nga xam ne euh, moom moo di euh, ca palais waaye itam ca pale de justice la monseigneur Benjamin Ndiaye ak itam taxawaay wi nga xam ne daal na koy am ci réew mi ni ki démb ginnaaw itam kàddu yoo xamante ni fësal na ko la mu xam le moom moo di nag li xew ci réew mi ci la jamono bokk na ci li ko ëlëm lool la. nañu ko euh, euh, toxal jàppal ne Washington ak itam euh, Paris ci la jamono itam ñu ngi tëggat bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di njiit mu réew mi ngir rek mu daal di amal aw app ci li nga xam ne nag moom la ñu war a amal mu ñeel élection yi. Walf Quotidien Walf di kat ba tey ci lu soxal wàllu démocratie jàppal ne ci la jamono fii lee la tëdd fii ci réew bu Sénégal dikkat nañu bu baax a baax ci affrontement yi nga xam ne nag ñoom ñoo amoon fii ci ndakaaru manifestation yi Amadou Ba bi mi ngi ci page 3 4 5 jàpp 6 bu li nga xam ne euh, moom moo di euh, Walf Quotidien Abdoulatif Coulibaly euh, daal nay wan ginnaaw li nga xam ne itam moom moo di gouvernement bu Sénégal Aminata Touré ak itam Anta Babacar Ngom bi nga xam ne jot nañu leen a jàpp yóbbu woon leen ca gendarmerie Fouar bàyyi nañu leen ñu ñibbi seen ak màkkaan bés bi le jour bés bi ba tey ak li mu dippee coup de taille loolee la rek daal di addu njiit mu réew mi mu ngi ci nataal bi ak itam fa nga ne moom moo di ca péncum sénégalais yi nga xam ne itam nar nañoo dem ca kawam. laas dikkaat ba tey ak élection présidentielle yi nga xam ne euh, dañu ko euh, rek euh, daal di dàq fii ci réew bu Sénégal. Vox Populi Vox Populi lu ni mel rek daal di xëyee ci jamono yi nga xam ne nag ñi samp seen nënd jëm ci yooyu la élection ni ki démb lañu waroon door li nga xam ne moom moo di campagne électorale bi. ñu jàll ci source a. source dikk ba tey ak njiit bu réew bu Sénégal bi nga xam ne nag daal di nañ koy sës ci miir bi waaye teewul ba tey moom fa mu taxaw jugu fa benn yoon mu mel ni tam takk tàkk la rek yéen kaay bi xëy euh, fësal mu ñeel li nga xam ne euh, moom moo di euh, page 2 3 4 5 6 jàpp 7 bu li nga xam ne moom moo di source A. Sud Quotidien Sud Quotidien Macky annule tout maanaam daanaka dàq na lépp loole la Sud Quotidien daal di addu mu ñeel présidentielle atum 2024. xool record record tàggat yaram ak itam mondial 2026 RDC Congo ak itam Mauritanie xam nga ne ñooñee réew bu Sénégal war naa mën a laale ak ñoom euh, juin sera euh, crucial euh, pour les Lions dikkaat ba tey ci wàlluk làmb ak itam booy ñoo bu ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo doon laale ni ki démb lu soxal itam Ligue des Premier League mu mel ni Everton nam ñaari bal ñaari ñaari bal ku ci nekk la rek daal di dugal sa morom moom gànn gay ak itam taxawaay bi nga xam ne am na ko ci boobu lee match mu ne ko lire ci li nga xam ne moom moo di page 5 bu record ginnaaw record beneen ab yéenekaay yi. page bu njëkk stade CAN 2023 Ferdinand Coly ancien défenseur euh, des Lions daanaka àdduna ci wàll wi la mu xamle moom moo di ce euh, Sénégal est meilleur que celui euh, sacré en 2022 kaddu la yoo xamante ni ancien international sénégalais wile moom moo ko daal di yëkkati. ñu tëjee sunu lamb sunu lañ koy tëjee dimanche ñeenti fan ci weeru février atum 2024 ca arène nationale combat yi nga xam ne gis nañu ko foofee Zarko daal di daan ki nga xam ne moo di ñan bu ndaw lu ni mel mu mel ni nag fësal nañu. sukkandikoo ci nataal yi bu ñu lootoowee ba bu ñu songee ba bi nga xam ne ah, moom la rek ah, ah, daan daal di am ci diggante ñaar ñi nga xam ne ñu ngi doon laale démb pàcc wu njëkk wi ñeel li nga xam ne moom la yéenekaay yi xëy fësal niki tey yemook numéro bu njëkk de la semaine ñaareel pàcc wi daañ dikkaat gën koo faram-fàcceel mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média lan la ñuy waxtaane mën nga indi l'observateur euh, ci la ñuy taxaw merci Cheikh ba si kanam ñu yaraat yëglekaay yi li ñu xëyee alors Mortala ginnaaw ba président Macky la jëlee euh, defee discours bi barki démb ñu gis ni tey jile lañu ñu convoqué député yi ci assemblée nationale ñu nar a sëgg ci proposition de loi boobu ngir randal présidentielle bi ñu ngi naan juróom benn weer